nekk royukaay fii ci commune bu Patte am nañ ci ndam ndax fii di quartier Kër Damel foo Mixta d'ailleurs saa bu ñu fi ñëwee li ñuy gën a impressionné mooy sécurité bi. Euh, on parvient à pouvoir dox dem ñëw ci jàmm. te loolu lu ko waral mooy dispositif fu ASC bi nga xam ne nekk na sur le plan euh, sur le sur ci site bi. di wax ne aussi lépp lu ñu fi def am ci ndam. ASP yi bu ma wax bu ñu yeggee ci seen euh, ci suñu suñu jot gisee loo xam ne jaaxal na leen dañuy référé wu ci euh, poste euh, commissariat de police des Parcelles Assainies soo moom tamit bu gisee lu ko jaaxal day référé wu ci sous préfet bi sous préfet bi référé wu ci préfet bi ba noonu lay dem ci hiérarchie commandement territorial bi yëpp. mais li gën a faciliter liggéey bi fii mooy képp ku dëkk Kër Damel yaa ngi ciy bay sa waar. maanaam xoolu suñu liggéey c'est notre cœur donc dinañ ci gën a góorgóorlu ba sécuriser le maximum de quartier ndax gis ngeen population yi nga xam ne ñoom ñooy bénéficier wu suñuy service témoignage bi nga xam ne maanaam def nañ ko ci solo si programme boobu am en tout cas ci mag ñi ñu ngi doxantu euh, coow li wàññeeku na euh, jumaa yi ñu ngi ubbi ñaa ngi xëy di julli ji fajar commerce yi aussi ñu ngi ubbi ba ay deux heures du matin donc euh, prix loyer bi sax yokku na ndax sécurité bi nga xam ne